mais béy ci sa weewu tànk maam boobu. ah waaw xaaral ba bés ba. xam nga naa fii Moussa Baldé. lui il dit qu'il est le véritable patron. de de de, de, Kolda. Euh, non c'est un vrai patron. et nee na il a contribué même à te faire élire. te kooku amulo kooku amuloo soutien am. c'est un vrai patron nag. Moussa moom c'est un vrai. patron. c'est-à-dire. un patron saabu du fóot il a contribué à te faire élire. ma ne saabu du fóot boppam. cest à bëgg moo wax. ñu dañoo dem élection locale deux mille vingt deux ah du dëgg Kolda quinze collectivité territoriale ñoo ci nekk quinze. les huit dont la capitale régionale ont été gagnées par des listes dissidentes kon moom mooy patron bokku ñoon APR de. moom moom département xam nga li xam man APR laa bokk. waaw APR laa bokk. damaa def liste parallèle ma dem jàkkaarloog suma doomu ndey du dëgg. mais Mame ki fa gagné nekkul woon APR. waaw ah, moom département la. waaw déglu ma rek non déglu ma rek. Mame Paty ki fa gagné nekkul APR Medina Chérif ki fa gagné nekkul woon APR ak yeneen ak yeneen dama la ne. vous avez quinze collectivités territoriales dans le département de Kolda les huit ont été gagnées par des listes dissidentes qu'on a voulu présenter au président comme des listes parallèles man sàkku ma Moussa Baldé mu ànd ak man devant l'histoire bu dee doomu gor la moom laa wax de parce que man li may wax rek dama koy teg ci dëgg yàlla moo tax may wax moom moo am lieutenant bu tudd Yunusa Mbaalo kooku moo dem seeti suma pap ne ko dañoo bëgg a jàppale Mame booy Diao ci biir commune bi. avec sa bénédiction. doo ma déglu ah mais bien sûr. du ah. Yunusa Mbaalo lu mu sëqat Moussa Baldé ma ko. voilà avec la ah, déglu ngir ah. yàlla. Ah. waaw waaye xam nga nag ñun dañuy politique <laughs> ma ne leen waa jàppale bi naka lay demee sama papa boo xam nga nag ni da am kilifa mu ne ma Younous ça c'est ton parent donc vraiment il faudrait que vous vous concertiez ma wax ak suma équipe politique ñoom ñu dem waxtaan ñu ne dañ maa bëgg jàppale maintenant nag ci li muy bàkku nii de xamal ni déjà ñi muy wax noonu ñooñu laa wax de ànduñu woon ak moom en 2014 hein parce que il a dit que dama ko jox ñaari poste adjoint au maire ñaar ñi kenn ki ñoo àndoon ñun ñun ñaar déjà en 2014 ñu ñàkk kenn ki il était maire sortant nekkoon adjoint au maire ànd ak man ma delloo ko place bu mu amoon nag loolu mooy teraanga nag wala. mais kooku il se réclame de moi comme il se réclame de Moussa Baldé. mais en tant que président rek waaw non. pour l'histoire doo ma déglu ngir ah. yàlla. pour l'histoire quand ils en ont parlé moi j'étais d'accord. parce que li ñuy wax ci sama papa ak li ñuy def du benn parce que dañoo ne mooy dans ce cas là c'est pas élégant qu'on ait une candidature dans le département ngi <laughs> loolu mooy politique mais man nekkuma woon di xeex pour jëlee fa kenn bi ñu ko waxee ki nga xam ne moom lañ pressentiroon pour le département le président Faboli Gaye ñoo nekkoon ci oto bi na malheureusement quand on me de compte il était là s'il n'était pas là j'allais partir et pour le département et pour la commune donc bi ma sama lieutenant bi demoon di wax ak Younoussa Mbaró di rendre compte mooy Bunumar bi ngay wax mu ne donc ils disent que c'est pas élégant qu'ils vous soutiennent dans la commune et que vous ne souteniez pas dans le département du dëgg Faboli ne ma tons man di ma intéressé mooy ñu liggéeyal commune Kolda donc naturellement tu peux renoncer à ma candidature dans le département c'est un geste d'élégance donc ne serait-ce pour loolu qu'il n'insulte pas l'histoire donc yow da nga naroon def geste ah candidature dans le département contre dans la commune oui il le sait mais xoolal résultat wu local yi dans le département sax xoolal local yi dans le département lan mooy résultat benn Benno Bokk Yaakaar donc man bëgguma sax di dugg ci ay xuus yooyu mais c'est lui qui a besoin d'exister parce que heure bi xëy na loolu moo ko intéressé mais moi je ne viens pas ici pour yàq doomu doomu ko xam nga lan ngay fàtte xam nga lan ngay fàtte ah non man nag yàlla dafa ma bindee ci ay cycle yu bizarre de 2014 dama ñàkkoon de waaw ma ñëwaat élection bi toog ah, ma gagné législative da ah, la <laughs> nag alors que euh, euh, euh, lui à la il a raflé tous les départements tous les départements demande lui avec qui ah demande-lui avec qui. ah mais avec qui nga yaakaar qui était le président du comité électoral départemental. si il si ose s'arroger la victoire moom aux législatives tout seul. il ah. insulte le président du comité électoral départemental. kan mooy président. c'était Abdoulaye Bibi Baldé le ministre Abdoulaye Bibi Baldé c'était lui le président. waaw mais moom moom mooy. président conseil départemental. et vous avez largement remporté le département et les départements. xoolal cartographie élection locale 2000 moom mooy référence. même na doo ñëw ñu waxtaan ci Sénégal ngir yàlla. mais si c'est important. mais je t'ai dit. c'est important nga édifier nit quand tu es le patron quand tu es le patron tu écrases tout le monde il aurait il il voulait être candidat dans la commune wala on t'a pas dit ça. dans les sondages la laquelle moom na demande ma je ne trahis pas les débats avec le président mais demandez demandez renseignez-vous vous êtes des journalistes il voulait être candidat dans la commune il voulait être candidat maire que tout li ko tax a dellu xam na ko président n'a pas fait de choix fortuit mais ngir yàlla bu ma bu ma yóbbu ci adversité bu nga xam ne amul sens si man si il dit que c'est m'a fait gagner vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm man je suis sur un autre challenge aujourd'hui et en tant que fils de Kolda j'espère qu'il va me soutenir parce que normalement doomu Kolda bu falo moom moo falo mais mais mais tax ma mais mais mais mais non cas moi je je lui aurais parce que aussi dafa am solo ci boo nekkee ci yenn bopp yenn structures yi aujourd'hui on fait face à une très forte adversité des intellectuels et des universitaires. C'est lui, il ah, mais lui, c'est le président du réseau des universitaires républicains. Ils n'ont qu'à apporter des réponses élaborées, sans, sans émotion. Ils n'ont qu'à apporter des réponses élaborées. C'est comme ça qu'on le président de la République. Man, man ak jàmbaar laa de mais mun na nag génneel toute l'historique des débats télévisés que j'ai fait ah yomb ma daan <laughs> xam nga ko sax mais maintenant nag ñoom. nañu lijjanti ñooñu il faut qu'il fasse face à ces jeunes là qui sont en train de euh, de de d'essayer de gâter le nom du président à l'international. En tout cas, le président il est dépeint comme euh, euh, Macky Sall est dépeint depuis quelque temps dans de nombreuses tribunes euh, signées par des écrivains des magis des, des juristes des intellectuels comme un dictateur. Les politiques baal ma ci kàddu gi c'est pas une caricature c'est comme les femmes. oula. elles prennent oula non déglu ma déglu ma. elles font des. attention de. wallaahi li ma lay wax déglu ko bu baax ba nga ba ma pare pour eux pour les politiques de l'opposition ils sont parvenus à faire reculer le président de la République sans qu'ils ne sachent pourquoi le président a décidé de renoncer à son troisième mandat pour eux maintenant il faut qu'ils continuent de dérouler leur plan donc il faut qu'ils aillent vers une autre conquête waxeewuma ko fu ngay les politiques sont en de conquête anytime yaa ngi li ma lay wax donc ci lañ nekk ñoom ils sont dans leur logique de conquête nous on doit faire face Maintenant, ce sont des universitaires qui ont parlé, mais je veux entendre le réseau des universitaires républicains. Je veux les entendre sur les plateaux. Je veux qu'ils parlent droit, je veux qu'ils parlent économie, je veux qu'ils parlent liberté publique, je veux qu'ils parlent distribution de la justice et qu'ils disent au Sénégalais que le président est en train de faire comme il faut. suñ ko mënul ñu noppi. mais moo gën nga yóbbu débat bi Kolda. pourquoi vous aimez aller à contresens de la majorité. non comment c'est-à-dire yow à Kolda. am nga fa ay dissensions politiques. avec qui. biir APR ah déjà. ah non c'est lui qui a dit que c'est lui qui m'a fait gagner. waaw ma tontu la ne la comment il peut me faire gagner. alors qu'il a négocié pour que je ne sois pas candidat dans le département que je n'ai pas une liste dans le département comment il peut me faire gagner alors que huit collectivités territoriales sur quinze que constitue Kolda dont la capitale régionale ont été gagnées par des